ay wax yàlla xam na bàyyi naa ñëpp yàlla te baal naa ñëpp. Mm-hmm. ma eh, bu dee am naa lu ma jàppal nit man. Mm-hmm. man ni bu dee am lu ma jàppal nit. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla wan man aw ma xoolu rànkeñ. comme ni ma la doon wax sànq ku am xoolu aadamoo ki weer gi sa kaat nga mën a waxtaan ak di kaf ak moom di foo ak moom. kon du ay ñeneen du sii di laay jàpp ndax sama mag la ñoo bokk deret. ni ma mel moo ko def ci man bu ñëpp ne bànnayaa bànnayaa bànnayaa à cause de sii de.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 papaam ak yaayam moo ko gënal oto bi ni mu ñëwee noonu la jëlaate caabi jéeg lépp ne ko papa am maa la ko mayaat ndax nee na moom doyewul dara oto kaadaru nag ci feccam ak carrière am dafa pause moom moo jël de soo pause boppam nekk ci boppam ndax sonn na ci aar daj na lu nekk ci aar dafa jël mu pause xoolaat boppam xoolaat entourage am waaw gars yi may wax sénégalais yi ñu am yërmande